soxna bi ci teew di jaajëfal journaliste bi ci teew di jaajëfal waa Guédiawaye ci kon li nga xamante ne ñoo woote woote tey mais di jaajëfal également xale yu ndaw ndawaan yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di leen wax nag fu ñu nekk rek nit ñi ràññee leen parce que dañuy mel ne ay picc donc ñuy leen di ñaan rek ñu wàcc seen baat yi tuuti di jaajëfal Pape Pape Mama parce que PAMA moom néeg la bi nga xamante ne bu disponible saa yu Guédiawaye hip hop wootee ñu yónnee mairie lettre wala ñu ñàkk yónnee mairie lettre dafay teew parce que xam na solo liggéey bi di jaajëfal également ren rab bi di jaajëfal Lamine parce que li ñuy dawal ci projet bi tey seen gox lañ doon ubbee muy quartier Darou Rahmane ci bassin bi dakk tey nag ñoom lëkkaloo ak centre départemental d' éducation populaire et sportive bu waa CEDEPS bi pour amal fi conférence de presse di wax ni li leen ci woowee lu am solo la parce que projet bi mu ngi tudd dundal Wakhinane dundal mooy ñu fexe Wakhinane dund dund mooy naka mooy xel ñu def daal ci xel mais également dundal gox parce que gox bu dundul nit ñi dañuy wéet gox bu dundul nit ñi lu ñu xam te bu nit ñi xam na ay gaaw seen biir li waral na projet bi mooy dañu seetlu ni géejawaay en général bu ñu jëlee géejawaay dans sa globalité ci ni mu toll yëpp ba jël quartier yëpp ak commune yëpp géejawaay 1967 ñu jublu 1967 ba léegi nag am na juróom fukki at ak li teg ñuy seetlu ni dafa am ñu sos Géejawaay mais am également ñu ko wàlliyaansi ci biir loolu ñu am ay quartier yu bees yu juddu ci booru littoral bi muy ay Hamo 6 di ay Cité Centenaire di ay gàddaay te booy xool sax léeg-léeg dañuy dégg ñi dëkkee côté corniche bi dañuy jàpp ni ñoom. ñoo gën a nekk ci ay conditions yu baax ñi nga xamante ne ñoo dëkk bayaay wala dë dëkk quartier waxi nan te clivage yooyu baaxul clivage yooyu buy am lu ñu war a waxtaanee surtout jëmale ko ci ndaw ñi moom way bi nga tëgg nañ ko muy MC di Kobza die effectivement di de eh, vest di bu di ñoom bu di ñoom ñëpp di ñu bindee way bi ñun dañu ko war mu nekk ñoom seen xalaat mu ba nga nekk ñun suñu xalaat parce que ñun ci beneen jamono rappeur lañ ñu nekk ay rappeur nga ñi dañ ne sama gox lu ne la jaay ñeneen ñi ne man du ma salte dem policier bu fekk si man yàmbaa ba muy yóbbu kaso ñeneen ñi ne gox bi bu sànkee ñun ñoo koy toppatoo ñeneen ñi jóge foofu ne ah, jaxasoo bi am géejawaay diggante njaago yi ak tukulóor yi diggante njaago ak séeréer diggante joolaa yi muy way mu ne ah, fekku pat yi jot na ngalax la ñuy naan parce que bu fekku pat jotee ngalax la ñuy naan ñi nga xamante ne ay demi jullit la ñu mel

moo tax ay mag yu mel ni Babacar Seydor ci Salbaax production di gunge ndaw yu bëri di leen gindi di leen yee ñu wax ak ñoom ci yenn jafe-jafe yi pour ñu a mun loolu lu am solo mu nekk programme bu fasantikoo bu yaatu bi nga xamante ñu ngi ci liggéey ak partenaire bi di OSIWA OSIWA nekk partenaire bi nga xamante ne dafay dimbali ay association yu nekk ci gox goxaan yi surtout ci wàllu civisme ñu wax nag. ni que lu am solo lay lu am solo lu am solo mooy ci projet bi mooy projet bi nga xam ne réduire les inégalités sociales réduire les inégalités sociales maanaam kii dafay am fukki dërëm ki nekk ci wetam lu am dara kii di reeree ginaar ak miche yi amaana sax bu am lu mu reere wala mbaxalu benn jën bu ngaam lay reere donc ñuy gis ni que kii reere mbaxalu ki nga xamante ne ay ginaar ak ay mus ay gàtt ay reere taxul reere ginaar ak mus taxul nga gën ki nga xamante ne mbaxal ngay reere te bu xeebal amee réeroo dafay am te bu réeroo amee dëkk bi dafay jaxasoo te bu jaxasoo ñi am ak ñi ñàkk ñëpp ñooy nekk ci problème parce que ñi ñàkk dinañu fekk audio mii toog di jaay butikam di jaay ay scooteram bu jaxasoo amee dañu daal di butikam sàcc ñëpp naa saay ci waram dem marché do do mëna dem marché nit ñi liñ doon dundee yaakaar ci mën ci mëna a dox pour mën a doxal pour mën a sàmm seen njaboot dootuñu ko mën mo moo tax ñu né na ndaw ñu waxtaan da ndaw ñu gor gor mais ndaw ñu aussi fexé ba mag ñi buñ leen dugal ci seen réew man jullit la doomu jullit du ànd ak doomu catholique wala man kat murit la doomu murit du ànd ak doomu tidiane wala man njaago du sama nawle yooyu wax il faut que ñu jéem a fexe góorgóorlu ko góorgóorlu dàq ko parce que géejawaay li defar liy taalu géejawaay bi mooy melting pot bi jaxasoor bi séeréer bi dafay lekk kër tukulóor bi gunaata tukulóor bi lekk kër njaago bi prentam yooyu noonu yëpp dafa am solo ñu jàppante bëggante soppante ba pare ñun ñi nga xamante ne ñoom daal ndaw ñi di yónnee nag Pape Mamadou ci monsieur le di ko wax ni. dañu bàyyi di doyalal Guédiawaye hip hop parce que Guédiawaye hip hop association bu am solo buy def liggéey bu am solo jàpp nañ ni ñun war nañ ñu jàpp ci lépp li nga parce que néew na lu ñuy gis loxo bu fekkee jëf bu deret la ñuy ko jël teg ko fële xam ni ay acteurs la ñi nga xamante ne ñoo bokk nekk si gox bi ngir doxal ko gox bi jëm kanam pour suuxat fi jàmm parce que ñun ñëpp xam nañ ne suñu màndargay gox moom mooy ñàkk suñu màndargay gox moom mooy koom-koom bu sooxe suñu màndargay gox moom mooy ay infrastructure yu sooxe infrastructure yi nga xamante ne nag mairie yi ñu ngi ciy góorgóorlu yu mel ni bassin de rétention yi yu mel ni canalisation yi population yi aussi war nañ di góorgóorlu di leen protéger bañ di ci tour mbalit bàyyi ci dugal ay bopp xar bu fekkee noyyi li moo ba pare di invité mairie bi ñu indil ñu leeral ci li nga xamante ne mooy filaawo yi ñuy dagg te xamuñu fu ñu jëm ñii ñu ngi naan ay kër lañ koy def ñii ñu ngi naan ay armée la ñu ngi naan ay bi pour loolu quand même ñu bañ ko def ay kër ñu fexe.